non regret moom mënut a parce que imaginer nga dominer équipe bi deuxième mi-temps nga am quatre occasions dugaloo après xam ñoom ñoom benn deuxième mi-temps ñu dugal xam nga lu lu dafa dafa doy waar quoi benn instant quoi parce que imaginer bu ñu dugaloon ñaari ballon yi jeexoon na quoi mais football la quoi des fois daf lay dal ko mais am problème quoi da nga koy fàtte rek nga jéem a préparer yeneen match yu ñu ñëw quoi. on ne sait pas forcément mais bon sinon dinañ dinañ dinañ jéem a trouver solution mais benn instant des fois da ngay poser sa bopp question doo xam sa lan la parce que da ngay joxe quatre-vingt-dix minutes à fond benn instant après mooy loolu quoi. mu des quoi.

en tout cas daal boo nekkee si terrain bi des fois nga xam ne nii euh, nekkoo sax mais da ngay jéem a essayer euh, donner euh, le meilleur de toi-même pour l'équipe voilà quoi que ñun il faut pas qu'on se contente contente sur résultat des autres loolu man sa des fois ba tey xamoo xamuma sax ba équipe moo gagné parce que loolu intéressé wu ma quoi ñun bu ñu gagné sax lii yëpp du am quoi bu ñu gagné rek jeex na quoi parce que trois points bu ñu ko amoon tey. kenn waxatu ko mais match la daan non non léegi moom loolu moo ñu des il faut ñu ñu reyante ci bi xam ku nekk def li nga mën xam def li la waral xam nga nga bañ a tricher daal xam nga non ambiance moom loolu am problème fi ñëpp a ngi fii kontaan xam ambiance am na grand yi booy yi doo leen xam am na ko am na yàlla def na loolu am na ko te ñoo déggoo te ñuy kafre